ma 2000 wala 3000 personne jóge won jaar ci ndokh mi dem di len fekk danañ len tatagal kon tay ñun buñ ay atangi ni ngi na eh, ay atangi ni bañ yoré chambre de commerce ba légui ñu diko def lolu nak lim ñuy jox exemple moy liggéeyu alaaji Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass Baye ndax fexé ba nga xamné ni doomu aadama yi yatiina min kulli fajjin amiqin alquran ba mu koy wax mooy fu sori mooy mooy dana ñëw ci fu sori nee na li sadu manaafi'a lahum mooy ñu am fa njariñ ndax wër na mën ne ñoom danañ àndaale ay marchandises danañ fi jënd demaat kon tey jii dafa war a nekk loo xam ne nii maanaam euh, gouvernement bi jàpp na ci capitaine por ba ngi nii taxaw euh, jàpp nañ ci baliser leen waaye ñun dañoo yaakaar ne li ñuy toppatoo transport ci Sénégal mooy transport euh, passager terrestre nga xam ne ni état day investir ci autoroute investir ci ay policiers yu fay taxaw suñu yàlla defalee autoroute ndox war nañ ci gën a investir pour fexe ñi nekk Gambie sax di déplacé wu di ñëwee nii ñi nekk Dakar di déplacé wu di ñëwee nii day nekk échelle économie bu am doole ah, day nekk tamit loo xam ne nii mu ëpp sécurité incha allah ci ci ci ni ma gisee kon nag ñëw biñ fi ñëw fi tey dañ fi ñëw ci turu opérateur économique yëpp ak turu Kaolack gi yëpp ah, masawu leen ndax ko agsi sept heures fii xamal ne ma nga jógee deux heures de matin fa mu nekk te nekk ci ndox loolu doo mën a nelaw doo mën a def dara kon nag ah, agsi agsi leen encouragé leen ba nga xam ne nii Euh, at mu ne seen i danañ sawar a ñëw ak seeni mbokk tamit seen xel daal. président xam nga matuwaay yi yéen gis ngeen ko gis ngeen ko gis ngeen ne lépp loo xam ne nii digle nañ ko ci wàllu matuwaay ñun teg nañ ko fi ci wàllu uh, kii uh, ni ñuy uh, raxasoo préventif seen masque yi ak ni leen di joxe lekk yéen a ci teg seen bët ndax xam naa ne macha allah yàlla may na leen. Euh, ngeen di tasaare lépp ci lu baax waaye bu ngeen fi gisoon lu yées tamit da ngeen ko wax pour que ëllëg ñun ñu rectifié ko kon nag euh, mi ngi noonu daal. c'est bon président luy euh, poids économique en tout cas Gamou Baye Niass ci diwaan bi ak lan la war a def pour cité religieuse bi doon une cité boo xamante ni voilà day doon une cité économique beaucoup plus attirante. waaw xam nga man damay wax toujours rek ci Baye ak ci euh, maam Khalifa Niass mu mag ma li ñu incarné fii ci Kaolack dafa daf daf ñu motiver ñun motive ci zahir zahir gi rek laay wax euh, zahir gi laa laa laay nga xam ne nii loo wax mu teg mu teg mu teg ci ba fexe ba yow say taalibe munoo xam ban gox lañ bëgg ndax tey boo nee mis muslim julit walla nga ne wahabit yi da nga naan monde arabe la ëppe soo nee bàyyi nag doo xam senegal la ëppe doo xam Nigéria la ëppe doo xam Soudan la ëppee doo xam euh, euh, doo xam fu ëppee daal loolu mooy wane ne lan la mu doon wax ne maa ngi dox sama tànk bi di nasra diine pour tasaare diine ak am ngërëmul yàlla yàlla mi ngi ko koy fay ndax fayum yàlla moom doomu aadama ma ngi ko koy fay ci àjjana waaye mi ngi mi ngi ko koy fay pour ak njabootam gi nekk fii ñun xam nañ ne opérateur économique yi nekk fii ah gis nañ ko muy gàmm yëpp ak màggal yëpp bu ci amul rek danga gis ne dana laal économie te xam nga réew léeg-léeg consommation dañuy jàpp ne naan dañuy yàq consommation kenn du ko yàq américain su seen bële ñoree ñu xam ne bële bi ëpp na dañ xam ne buñ ko bàyyee ci marché bi mu daaneel prix bi te bu daaneelee prix bi béykat bi du bëgg a bayaat dañuy jënd liñ ci li nga xam ne nii moom lañ ciy jënd dugal ko ci marché bi li ci des ñu jël ko tuur ko ci géej gi pour bëgg prix bi bañ a daanu kon tey jii li am solo rek mooy nañ fexe ba li ñuy consommer jóge ci réew mi su doon ci réew mi lañ koy dundee ba pare defar ko ba pare sax tuur ko sax yàqul yàq du yàq parce que day dana liggéeyloo ay doomu aadama dana créer ay industrie te gis nañ ne jigéen ñi seen transformation yi te surtout euh, barki dem maa ngi dem ci euh, alfayda euh, ansaaru diine jigéen ñi femme de la fayda ñu organiser benn foire boo xam ne nii Eh, feeg déwén chambre de commerce dinañ ci dugal loxoom te bu danañ ci dugal loxoom ñun ñëpp te danañ gis mu amaat beneen dimension boo xam ne ni dana départ fii ci port bi ba ba ñuy àgg fañ jëm incha allah. monsieur le président est ce que jotul nit ñi ak réew mi gën a bàyyi xel waax bi ndax gis nañ li fi wàcc ay gaal ba ñu gën koo defar ba gaal gu ñëw mën a kose wàcc facilement par rapport ak ñu ñii di wàccee. waaw loolu moom xam nga lu ñu lu ñu lu ñu lu ñuy wax di ko waxaat la. président de la république dafa ñëw fii am yéene mhm. indi fi ay bateau yéene defaraat ko waaye xam nga léeg-léeg ñun suñ techniciens yi seen xam-xam day bari trop ba pooru daxu nga bee ñu def ñu yaakaar ne pooru daxu nga mën naa remplace pooru Kaolack waaye ku am xam-xam da xam ne pooru daxu nga mënul remplace pooru poor day topp dëkk dëkk du fekki poor ci àdduna bi yëpp port day topp day topp dëkk Kaolack moo yor économie bi te noonu la ko waxee woon Ah, ñing koy ñaanaan nak lolu mu taxaw ci taxaway euh, mu ñu taxaw ci ndax ñu nit ñi la port bi économie le ci transport terrestre ci transport passager transport marchandise et économie maritime ak tamit beauté fierté tourisme taxaw gis ndox ku ne ka ñu may la kër fi ci Kaolack ñu ne la ñu may la ko fele ci digg Kaolack wala ci wetu géej gi ci wetu géej gi ngay tànn kon nag tey bu ma gisee Cheikh Bachir ñas ñëwal boppam nga xam ne ni invité wuñ ko sax ndax ñun mbir mi dañ koo bañ comme li nit ñuy wax damaa nekk ci position boo xam ne loo waxati ñu ne dañ politicien waaye yàgg nañ ko dañ koy politique yàgg nañ ko def mu ñëwal boppam jiitu ma fi def fi déclaration boo xam ne nii ah waxuma la ne comme li nga wax ne nit ñi dañoo war a jógaat waaye yàlla moom mi ñi ñuy ay karaamaam mi ngi woon karaama yi nga xam ne nii Baye def na ko ak kilifa diine yëpp ci kaw la kon nag euh, euh, taxaw ci ba loolu vraiment sénégalais bi fier ne maa ngi si fierté am fierté maa ngi am sénégalais ndax ki nekk ci île bi wax dëgg yàlla président def na ay programme pont yu mu wax waaye dafa am diggante yoo xam ne kenn mënu koo pont looloo tax ñu naan euh, tubaab di tuddee pont aérien ak pont maritime pont maritime mooy wut ay ay bateau yu mag yoo xam ne dana mën a jër nit pont aérien moy jël ay avion yu jël nit ndax so dégué ñaan la pont aérien ak pont maritime transport terrestre transport marchandise ak nit rek la kon tay ñu nekk ci île xamna né naa ne touti effort yu ñu leen jàppalee yaakaar naa dix mille personnes dana fi ñëw wala lu ko ëpp ndax ña fa nekk ñëpp xalé ak ndaw mag kenn ku ne so sañon tay fekk la fi fekk mm. bis bi fekk la fi. oui c'est une euh, c'est c'est mon devoir en tant que citoyen sénégalais, en tant que euh, natif de Kaolok et en tant que président de la Chambre de commerce, là où des populations sénégalaises se déplacent, même s'ils allaient dans un autre pays, euh, on leur accueillera. Et surtout à l'intérieur de Sine qui se déplacent avec leurs propres moyens, avec des difficultés, mais grâce à une sécurité mise en place par ANAM et en même temps par eux-mêmes, parce qu'ils savent bien que être ensemble c'est plus sûr. Euh, ils ne viennent pas individuellement, ils viennent ensemble. Et donc ça c'est un exemple de courage et, de détermination et, de, venir à l'appel de Cheikh l'Islam pour célébrer le Mawlud. J'ai dit toujours que les, les, euh, certains religieux qui ne comprennent pas le Mawlud, je ne peux pas comprendre, vous, vous avez un, fils ou bien votre père, vous allez célébrer le jour de son euh, naissance. Si euh, dans le Coran, le bon Dieu nous dit que moi, le bon Dieu, je prie pour le Mohammed et les ange et demander aux musulmans de prier pour eux, c'est parce que le, meilleure prière, c'est de célébrer le maouloud Et donc moi, je pense que c'est l'une des piliers de l'islam. S'il n'était pas, si, si nous n'avions pas encadré les cinq piliers de l'islam, on peut dire que, on peut dire que euh, célébrer c'est l'une des piliers de l'islam. Parce que le bon Dieu dit que, le bon Dieu ne dit pas que je prie, ne dit pas que je donne des zakat. Il dit que moi, bon Dieu, je prie pour Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam et les gens et je demande aux musulmans de prier pour Mohamed... Donc je pense que ça c'est très important et, et, de demander à l'ensemble des autorités qu'ils essayent d'attirer l'attention, attirer leur attention sur ce phénomène qui est en train de se faire, Puis de 2500 personnes. Essayons toujours de leur encadrer et de prévoir parce qu'eux, ils assurent leur propre sécurité à part le balisage que l'ANAM a mis, mais devrait avoir une sécurité réelle, sécurité de, de sauvetage réelle. Parce que quand il y a le Magal, quand il y a les Gamou, les policiers et tout sont euh, sur, les routes. Donc la mer doit être mieux encadrée, sécurisée avec des hélicoptères et tout, et tout cela. Et en, même temps, refaire le port pour que le port soit un, un espace d'accueil et un espace de fierté que chaque étranger, s'il vient voir que euh, ces pèlerins viennent, ça pas amener même du tourisme étranger. Moi, je sais que ça, uniquement, c'est un événement. En le, vulgarisant, vous allez voir des personnes venant de loin de l'État-Unis pour venir assister à l'arrivée des pèlerins. et c'est possible. Quel est le dispositif sanitaire mis en place Les dispositifs sanitaires, comme vous le voyez, nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires et pour cela, je remercie bien le personnel de la Chambre de commerce qui, euh, à leur tête, président, euh, secrétaire général de euh, Abdelai et qui a travaillé avec nos, tous ensemble Baye ils ont travaillé ensemble pour leur accueillir et pour leur soutenir et pour leur donner le petit déjeuner parce que imaginez ces personnes qui se réveillent à 2 h du matin de ne pas dormir, vous savez bien que si vous ne dormez pas, vos, organismes travaillent. C'est différent de dormir et le matin, vous arrivez avec, euh, euh, avec, euh, avec une fatigue et un peu de faim. Donc pour, pour euh, s'en ah, L'impact économique L'impact ah, on le voit. Donc moi je pense que n'importe où, même aux États-Unis, même en Italie, si vous voyez quand les guides religieux se déplacent et ils voient qu'il y a un monde qui leur attend de l'extérieur, ils le prennent en charge pour assurer leur sécurité et assurer l'économie. On me dit une fois, Cheikh Mortada Mbake, arrivé aux États-Unis, oubliant sa passeport ici. Mais quand l'immigration a regardé le monde qui l'attendait de l'extérieur, ils ont dit cette personne-là ne, ne doit pas être refoulée. Il rentre. Et il a rentré sans passeport. Et donc je pense que c'est ça aussi que Cheikh l'Islam euh, a fait partout dans le monde. Au moment que nous, nous, nous, savons, nous, au moment que nos parents ne voyaient même pas une voiture, lui, il a pris l'avion, faire le tour du monde, rencontrer les chefs d'État, d'État, les chefs d'État, difficile à voir actuellement, mais à cet instant, pourquoi Grâce à son euh, son, engagement et son audace et ce que le bon Dieu l'a donné et le discours qu'il peut leur donner. Parce que si vous n'arrivez pas à donner un bon discours, une bonne euh, impression à n'importe quelle personne, il ne se rappellera de vous et il ne t'accueillera pas et il ne te donnera pas attention. Aujourd'hui, moi je suis parti jusqu'à Chine, j'ai vu que ils ont donné une attention à Kaolak, mais maintenant c'est à nous de, de faire Kaolak d'amener Kaolok là où il était avant. Kaolok, il était un, paradis économique que tout le monde courait venir. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une ville salam salam mais euh, demandez, chacun il dit que nous, comme moi les disent que nous, les, euh, partout, les Donc moi, je pense que Kaolok une ville internationale, ville au cœur du Sénégal. Nous devons plaider l'ensemble des politiciens et marabouts et les journalistes ont droit à plaider pour que Kaolong revienne comme ce qu'il était. Et ce sera, sera un intérêt pour le Sénégal.